asalaamaaleykum progrès TV ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen liggéey bu baax a baax ndax euh, ñu ngi gis lépp li nga xamante ni yéen a ngi koy doxal muy ci biir commune bi ak li ko li ko wër ñu leen ci jaajëfal donc euh, man la Ilweli Fall nekk deuxième adjoint au maire donc ci commune de Karang Pos ok. Uh, salaamaaleykum euh, ñu ngi remercier waa progrès TV di nuyu seen internet yëpp. di nuyu population Kaarang yëpp donc euh, man la benn Saliou Ndiaye nekk coordonnateur PGIOM di nuyu aussi ñu ma bokkal plateau bi. asalaamaaleykum waa Progrès ñu ngi leen di jaajëfal yu bare bare di nuyu suñu mbokk internet yi ak waa commune Kaarang bi di sama naataango yi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi di wax rek ne man la madame Boucal Nicole Sophie Diouf troisième adjointe au maire di jaajëfal aussi waa si nga xam ne ak Pejom ñoo tax tey ñu toog fii jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum waa Karang asalaamaaleykum ñi ñuy seetaan di ñu déglu ñoom ñëpp maa ngi nuyu ñëpp. E, jiital ci nuyoo bi nag euh, le maire de la commune de Karang monsieur Pape Ibrahima di ko nuyu bu baax di ko jaajëfal di ko ñaanal jàmm ak salaam di nuyu aussi ñi ma bokkal plateau bi monsieur le maire El Walid Fall monsieur benn Saliou Ndiaye madame le maire Sophie Nicole Diouf euh, di ñaan yàlla ñu liñ fiy wax yàlla na ko nit ñi dégg ci jàmm ak salaam ñu yeggale ko ci jàmm ak salaam man la Fatou Ndiaye Diouf vice présidente commission environnement euh, chargée du suivi de l' animation DED. donc voilà merci beaucoup alors tey donc laaj ñuy njëkk a laaj dañ koy jëmale si nga xam ne rek wàllu municipalité ñi nga xam ne ñoo fi nekkal waa mairie. alors euh, tey gis nañ ne mairie Kaolack am na taxawaay boo xam ne am na ko ci wàllu gestion. wàllum maanaam wàllum mbalit alors eh, yaaj ngeen ci dox ay jéego mais tey est ce que mën ngeen fàttali waa Kaar ba bu am na ci ay yeesaange ci li nga xam ne politique bi ngeen war a mën a ngir mën a saytu mbay bu Kaar ngeen fàttali ñu ko man fi tam ci yees ba si ngeen merci beaucoup Babacar dañuy rafetlu question boobu noonu euh, te dinañ ci indi ay tontu aussi bu nekk question boo xamante ni bu am solo la ginnaaw bi nga xamante ni nag nuyu nañu askanu Kaarang bi ñuy seetaan yëpp. Euh, tey bi nga xamante ni yéeg nañ ci commune bi donc euh, ñu fal ñu population Karang fal ñu mbalit dafa bokk ci li nga xamante ni aussi ay compétence transférées la tey mairie bi moo nekk koo xamante ni tey moom moo war a saytu tey li nga xamante ni moo jëm ci wàllu woowu noonu ba nga xamante ni Karang day bokk ci communes yi gën a set ci biir àdduna biñ ñëwee nag euh, yéeg am na loo xamante ni fekk nañ ko fi fekk nañ fi PGIOM bi nga xamante ni benn Saliou Ndiaye mii moom moo ko jiite ñu commencé woon ci ci benn liggéey boo xamante ni liggéey bu am solo la ba tey jii ñu gisoon fi li nga xamante ni moom mooy ramassage des ordures mu commencé woon ci dëkk bi ak tricycle yi ñu fi doon gis mu nekk yoo xamante ni PGIOM la ak euh, ay charrette yoo xamante ni ñu ngi fi bi ñëwee aussi Caritas tamit ñëw moom i ci beneen côté ñëw jàppale ñu ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy mbalit mi bi ñëwee ñaar ñooñu nekk ñëpp nekk ay partenaires yoo xamante ni partenaire commune bi lañ wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu booloo ànd ànd ak commune bi pour xeex li nga xamante ni moom mooy mbalit ci biir commune bi. commune bi tamit lim ci def mooy parce que amoon nañ problème mu site bi ñu fi ñëwee foo xamante ni tey fa la ñu war a tuur mbalit. Euh, Caritas tamit dig nañu dinañu tabaxal benn centre boo xamante ni centre bu mucc ayib lay doon mu nekk centre de traitement donc euh, centre de traitement et de valorisation des ordures ménagères boo xamante ni dagg nañ site bi wax dëgg yàlla conseil bi aussi délibéré nañ ko mu nekk benn site boo xamante ni de trois hectares la nekk fële na la ca RNC ba nga xam ne jël nañ ko pour tabax fa li nga xamante ni moom mooy centre boobu noonu ndax centre boobu li ci gën a am solo mooy déjà dinañ fa mun a tuur mbalit bi mais aussi day jur yeneen liggéey ndax mbalit bi bu ñëwee foofu noonu tey dañ koy trie li nga xamante ni mun nañ ko recycler ñu recycler ko li nga xamante ni aussi mun na dem def ci compost ñu def ko ci ndax ci biir ci biir ci biir centre boobu day am li nga xamante ni moom mooy euh, euh, day am ñi nga xamante ni tey war nañ faa mun a def li nga xamante ni mooy jardinage ñu def ko ñu def ko foofu noonu donc mu nekk waaw maraîchage donc mu nekk loo xamante ni tey jii nii lu am lu am lu am solo lay lay doon ci commune Kaar defe naa tey jii nii foofu lañ toll euh, ci li nga xamante ni moom mooy mbalit mi ànd ci ak PGIOM ak Caritas waaw. alors donc comme ni nga ko souligné am na ñoo xam ñoo ngi ko commune di Caritas commune di waa PGIOM alors euh, est-ce que mën nga ñu fàttali aussi rôle bi nga xamante ne ñu ngeen ko seqal les parties prenantes ñu ngi ko ci moom ngeen xaar suñu en seen boobu. waaw liñ ciy xaar mun nañ ne PGE moom lépp loo xamante ni tey jii nii waroon na ko cee def mun nañ ne def na ko ci ndax tey woote na ci ay réunion sensibiliser na ci koñ yi papal mu ngi ñuy toog xam naa dina ci ñëwaat formé nañ ñi nga xamante ni tey ñoom ñëpp ñoo doon yëngu ci li nga xam ne mooy mooy mbalit mi parce que bi ñuy soog yéeg ñu ngi koy fàttali woote woon nañ fi ay journée de formation fële ca ñu ngi ko def woon ca euh, hôtel Sénégal bi donc ñu forme ñi nga xamante ni ñooy collecteurs yi mais former aussi ñi nga xamante ni moom mooy comité de quartier yi lépp ci wàllum ci wàllum mbalit donc ñooñu lépp lu ñu waroon a def tey jii nii def nañ ko def na def nañ ko fi indi nañ matériel bi aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy Caritas aussi bi ñëwee ci même siège boobu noonu rek ci lañ ci lañ continuer mooy lan parce que euh, comme niñ koy waxee rek tey partenaires yi bëggu ñëw tey jébbal matériel bi yëpp mairie bi ñu dem benn at wala six mois liggéey bi arrêté donc lépp moo tax tey réunion yi ngay gis ñuy def ci quartier yi causerie yi di def ay émission télé yi ay émission rajo yooyu yëpp pour lan la pour sensibiliser nit ñi ba nga xamante ni ëllëg tey partenaire bi même bu fi jógee sax liggéey bi day continuer ci kaw loolu nag ci lay Caritas wax dëgg yàlla jàppale ñu ci ay financement ñuy sensibiliser population bi di def ay visite à domicile di ci ànd ak service d'hygiène di ci ànd ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay euh, ñoom ñooy eaux et tey ci phase boobu noonu mun nañ ne ci phase boobu tey ci lañ gën a nekk muy lan phase sensibilisation waaw askan bi parce que mbalit dafa nekk loo xamante ni lu doy waar la te ñi koy buub aussi nekk ay doomu aadama tey kenn ku ci nekk tey sa mbalitu kër danga koo war a trier tey bala nga koy bala nga koy def ci poubelle bi war nga ko mun a def tri parce que am na tey mbalit yoo xam ne da ngay dem mu nekk suuf kese benn nit war a ñëw yëkkati ko am na diisaay bu muy diis du ko mën donc loolu lépp tey ci phase boobu noonu ci lañ toll muy phase su sensibiliser ñi nga xamante ni ñooy askan bi ba nga xamante ni tey suñ demee ba ci collect bi day nekk loo xamante ni lu yomb lay doon. alors euh, damay ñu jàkkaarloo ak naan ma nekk euh, monsieur Ben Saliou Ndiaye. Mhm. donc nekk càmbarkatu projet. alors euh, nga yàgg sur le terrain. Mhm. am gan bu ñëw fekk si. Mhm. donc amuñu ñoo liggéeyal tey nga am loo ak ñoom. te nga xamante si ñëw nañ lan ngay wax ñi nga xamante si fekk nañ liggéey ak donc merci Babou di rafetlu kàddu monsieur le maire yi di rappeler nag aussi remercier aussi les collaborateurs de PGIOM donc bien avant que. bu ñuy egsi fii xam na lu ci bëri man la ñuy gis mais y a toute une équipe qui c'est le lieu vraiment de les remercier donc comme ni ko monsieur le maire waxee dafa nekk ay phase yoo xam ne phase de sensibilisation la gestion des déchets dafa nekk un très particulier bi nga xamante ne soo ko defee même soo dégloo slogan PJOM bi mooy une gestion intégrée des de des ordures tant que mënoo ko def tant que l'adhésion de la population donc ñun ci lañ nekkoon Caritas aussi buñ ci ñëwee wax dëgg yàlla daf ñu topp ci siège boobu soo xoolee on a fait une synergie action yi ñuy def yëpp on a fait des actions communes même su ngeen xoolee comité de quartier ñu installé on les a installés Caritas daa ñëw fekk ñu installé déjà des comités de quartier ñoom ils ont dit qu'ils vont pas installer d'autres comités mais ils vont suivre les comités comme ñun def donc fépp xam ne comme liggéey la du mot fu ñu xam ne am nañ ay sooxandal wala am na ay manquement Caritas daa gën a ñëw renforcer ko comme ñun ñoo nekk sur le terrain ñun ñoo baliser terrain bi am na yoo xamante ne quand ay jafe-jafe la ñuy am dina permettre à Caritas mu éviter ko dina fekk moo xam ne ay manquement la ñu ñëw renforcer ko. donc daanaka bu ñëwee parce que aussi c'est li maire maire wax muy Caritas muy PGIOM muy beneen partenaire bu mun ti ñëw aussi donc tout yëpp ci comme c'est sous l'arbitrage de la commune donc commune commune bi mooy fédéré action yi ñun dañ mun a ñëw artiste participé moom la ñuy dimbale. donc moo tax aussi lépp lu ñuy def dañ koy def ensemble donc boo xoolee avec PGIOM on a commencé avec cinq quartiers terewul ci quartier yooyu tam Caritas bu ñëwee day renforcer quartiers yi des parce que Karang ne fait pas seulement cinq quartiers il y a d'autres quartiers qui restent huit quartiers la donc Caritas bu ñëwee dispositif bi ñu fi mette teg Caritas day ñëw renforcer donc day fekk trois quartiers yoo xamante ne nekkul woon ci dispositif Caritas day ñëw jël leen en charge donc day moo ne ne moom continuité la donc lépp liggéey bi benn la. alors gis nañu seen premier partenaire euh, en tant que euh, comment dirais-je PGE. Euh, mm-hmm. donc seen premier partenaire municipal. Mm-hmm. alors est-ce que li ngeen doon xaar si ñoom tey jàpp ngeen ne ñoom ñu koy def. waaw bon d'habitude c'est souvent c'est des questions yoo xamante ne ça revient tout le temps donc su ñu rappeler tuuti historique projet bi peut-être beaucoup de gens peuvent comprendre bu ñuy commencer projet PJOM bi beneen équipe municipale moo fi nekkoon. en l'occurrence monsieur le maire Diogine Gomis c'est le lieu de le remercier d'ailleurs parce que ci la projet bi juddu mais comme administration c'est une continuité te yàlla mooy dogal donc bi président di jël force di jël forme dafa fekk beneen équipe municipale ñëw mais terewul nag balaa ñoom ñuy toog amoon nañ ay impression parce que demoon nañ rencontrer leen tous les acteurs ak tous les leaders politiques waxtaan leen ci projet bi pour parler pour mun a ne kenn bu faloo bu du nekk lu ko bet dina am ay information wax dëgg yàlla ñoom it bu ñu ñëwee quand même ils mis des moyens am nañ accompagnement parce que wax na ko fi sànq amoon nañ problème mu parce que site bi ñu jëkkoon am kàmb la ñëpp xam nañ ne difficulté yu ñu am juste ci actuellement ci système bi loolu bokk na ci parce que avec mbaam yi ñu commencé woon ak charrette yi tellement que c'était éloigné ak système le site n'était pas trop favorable mais biñ ñëwee ñoom délibéré nañ accompagne nous parce qu'ils ont fait maire avec ensemble on a essayé de voir le kii de ICG te am na ay actions yoo xam ne ñu ngi ko fiy def ah. et je pense que la population en est témoin am na site yoo xam ne dépotoir sauvage yi avec l'appui du maire de la de la municipalité ñoo jox ñu koy éradiquer y a des fréquences yoo xamante ne souvent UCG day ñëw di ñëw donc euh, tout au long de processus bi la municipalité elle est présente je pense que defoon nañ fi benn cérémonie officielle bi ñuy door a talu def ko fi def une lancement bi projet bi pour ñëpp gën ko xam donc nag accompagnement moom du doy et je pense que peut-être c'est le lieu aussi de le ñaaxaat leen parce que comme mbalit moom dafa nekk système euh, kii boo xam ne boo xam ne dafa compliqué euh, comme li may wax rek mbari bariwul sutura tey mun loo ramasser ramasser bu ëllëgee nit ki ñëw fekk keneen tuuraat fi da ngay ñëw ah ñooy gars liggéeyuñ parce que mbalit bi kenn ramassé ko donc dafay xay sutura donc c'est moo tax aussi lépp moyen boo ci mun munti def du doy donc ñuy ñaan aussi ñu gën a accompagner comité yi de surface parce que comité euh, seen doole motul donc su laan municipalité ñu gën a am accompagner vraiment les co les co kii bi waaw les comités donc moo donc di gis dafay xaw a bi. waaw merci beaucoup Babacar di rafetlu sa question bi comme ni ko maire waxee benn waxee ko bi ñu ñëwee aussi di liggéey mo dugg si ci di projet boo xamante bi moom moo jiitu Caritas ñu ñëw toogal fi Caritas. Caritas nag yàgg nañoo def ay émission ci rajo yi di sensibiliser si sensibilisation yooyu avant sensibilisation yi Caritas bi mu ñëwee fekk na fi projet PEJUM projet PEJUM bi bi mu ñëwee ak li yëkkati Caritas ak li ko yëkkati yépp benn la bi mu ñëwee aussi ak Caritas ak PEJUM monte nañ ay commité de quartier bi Caritas ñëwee dafa ñëw renforcer ko nim ko renforcer dafa ñëw élargir monter waat ay commission muy commission suivi évaluation commission de communication commission veille yooyu yëpp ñu ne ah comme li yëkkati PGIOM moo yëkkati Caritas kon benn lay doon dugg nañ ci quartier yi ñu ngi sensibilise nit ñi bi ñuy bëggee sensibiliser nit ñi dañ ne ah nañu euh, euh, euh, dem cibler jigéen ñi dugg ci mbootaay yi fépp fu mbootaay nekk biir Kaarang rek dem nañ fa euh, def fa ay causerie def nañ ay rencontre de quartier ci ci kër délégué yi def ay mobilisation de masse def ay conférence lépp ci biir sensibilisation la def nañ aussi ay VAD yoo xamante bi pour ëllëg sunu bis bu ñu waree euh, euh, projet bi ñëw renforcer waat matériel yi nga xamante bi moom la fi PGIOM indi Caritas pour ñu mën a renforcer matériel yooyu dañ ñu wax ñu duggaat ci nit ñi def ay VAD pour mën a xam population bi ak nu ñu toll ba bu ëllëgee du ñu am ak ñoom problème. pour fi ni ma ko mën a waxee daal ni ko maire waxee rek ci sensibilisation lañ toll ñu ngi toll ci sensibilisation bientôt nag xëy na dinañ commencé liggéey bi muy ramassage bi déjà ñu ngi ci ak Pejom. mais ak Caritas aussi fi mu nekk nii bientôt daal. donc ñu daal di jigéen ñi tey alors lan ngeen di waaw Babou maa ngi delluwaat di la jaajëfal di wax ne rek li ñuy xaar ci jigéen ñi daanaka bari na ndax suñu ne mbalit rek dañuy wax jigéen. ndax boo xoolee tey jigéen ñi ñoom ñooy ñi nga xam ne tey ñoo fi nekk di bale ñoom aussi ñooy toppatoo kër yi ñoom nag ñooy defar waaye ñoom ñooy tilimal ba tax na ci jéego yi ñu toll fi mu nekk nii ak ñoom daal mooy ñu continuer sensibilisation bi di ñaaxante ci suñu biir te bañ a ne rek ah projet bi de du sama projet mbala man kenn boolewuma projet bi projet Karene yépp la jigéenu kaarang yépp la soxal kon mbooleem koo xam ne tey jigéen nga di yewoo biir kaarang rek ñu ngi lay lancé message bi di la xamal ne la kaarang bu setee tey du ñu ne mu parti Ibrahima Diop mi fi nekkoon la du ñu wax ne PGIOM la du ñu wax ne Caritas la mais dañu naan ah kaarang di léegi macha allah taaru na lool kon nag nañu jàpp ne lépp lu ci waay di def rek kaarang nga koy defal waaye defaloo ko sa bopp. kon jigéen ñi vraiment li may wax ci ñoom di leen gën a ñaaxaat di gën a sensibiliser di wax ne képp koo xam ne am nga information ngay góor ngay jigéen partager ko te bañ ko dencal sa bopp parce que njëriñ bi bu ñëwee suñu njëriñ la ñun ñëpp tey comme ni ko suma naataango yi waxee Fane wax na ko monsieur le maire Ilweli wax na ko benn saali mu ngi nii toog defe naa ne moom moo ko fi njëkk a moom moo xàll yoon bi du moo ko jiite mais moo xàll yoon bi la ñuy wax ba tey Caritas ñëw fekkaat ko ci rép yëpp rek ci benn bëgg-bëgg bi la kon nag jigéen ñi ngela ñu des ginnaaw waaw ñu ngi def nag mais nañu yokk doole te roy ci vraiment Médine jigéenu Médine desuñu ginnaaw waaw ñoom gis nañu vraiment seen taxawaay rafet na ndax ci seen liggéey seen comité dem nañ ba tabaski bi passé sax il pare que ñëw nañ ci ay nuróole te boo gisee mu marqué ma parce que dañu dem wakkangu na benn rencontre foofu aussi ñu gis fekk fa témoignage bu ni mel ci yëngu-yëngu boobu may ñaan vraiment population Karang di leen ñaaxaat ne leen ngeen roy ci waa Médine Médine macha allah de suñu ginnaaw am nañu taxawaay te bëgg nañ daal dëkk bi gën a set mu gën a ñoŋ jërë ngeen jëf ngeen. donc monsieur Wali li ñu ci xaar gën a jàmp ci Caritas. instant bii nii li gën a jàmp ci Caritas moo nekkoon tey livraison li nga xamante ni mooy matériel bi parce que comme ni ñu ko waxee woon rek. Caritas bi ñëwee aussi dañoo def benn diagnostic ñu xool le matériel existant lan moo am instant bii nii sur le terrain ak ñoom lan lañ war a indi je pense ni tey indi nañ li nga xamante ni moom mooy le pat le petit matériel mu nekk tey ay brouette ay râteau ay bale ay fourchette defe naa parfois sa population bi dañoo war dañuy ñëw parfois fii di ko ab leen koy aal ñu war koo acheminer nag parce que matériel boobu am na nag des loo xam ne ñëwagul su ñëwee dañ ko war a acheminer vers les comités de quartier nga xamante ni tey quartier bu ci nekk léegi soo bëggee def sa set setal sa koñ dootoo sonn di nga fekk sa koñ am nga fa ay brouette sa koñ am nga fa ay bale am nga fa rato am nga fa fourchette donc yooyu tey jii nii mun nañ ne tey Euh, li ñuy xaar ci Caritas loolu la ñuy gën a xaar tey li des ci matériel bi mu livré ko li nga xamante ni aussi moom mooy poubelle yi nga xam ne war na dem parce que déjà poubelle amoon na ak euh, PGM mais ba tey jii nii ça léegi nag restant boobu noonu tey war nañ ko war nañ ko indi livré ko ñu ngi ñu wax ne peut-être du soreeti peut-être d'ici trois semaines maximum jàpp nañ ne matériel boobu noonu dina nekk euh, surplace ñëw. est-ce que yaakaar nga ne fusion ñaari mën na tax tey ñu ne Karl en tout cas parce que loolu loo loolu moom lu am solo la defe naa benn wax na ko lépp li nga xamante ni tey ñëw na fi ci côté ci ko ci mairie bi ay partenaires indi ko fi tey mën nañ ne mairie bi lañ ko mairie bi lañ ko defal donc tey jii nii bu bu Caritas ñëwee PGIOM ñëw. parce que tey li ma ko waxee ci départ bi rek PGIOM dafa def liggéey bu am solo ci li nga xamante ni moom mooy mbalit mi ba ñu bëri tey yeewu nañ ci tey bu Caritas ñëwaatee tey loolu dafa ñuy gën yombal li nga xamante ni moom mooy moom mooy mbir mi donc ci la ñuy jaajëfale aussi ki nga xamante ni moom mooy benn Ben Saliou Ndiaye ndax gis nañ taxawaayam ci euh, du ma ni Kaarang mais tey ci département Foundiougne yëpp. tey gis nañ fa taxawaayam mu nekk ci projet mbalit ak ci yeneen projet yoo xamante ni dañ koy gis ci biir euh, ci biir dëkk yi mu leen di mu leen di jàppale. mais sëñ bi yaakaar nga ñoom ñaar mën nañ régler problème mu mbalitu euh, mun nañ ko régler munuñ ko régler loolu moom dina difficile pour ñu répondre ci. peut dañuy toog bu ñu toogoon d'ici peut-être une année ñu dajawaat fii dinañ xam ndax est-ce que réellement wax dëgg yàlla parce que ñoom li leen war def nañ ko. Mm-hmm. bu ñu defee leen war nag li ci des mooy suivi bi. suivi boobu nag ñan ñoo koy gérer mooy ñi nga xamante ni moom mooy euh, dette dynamique environnemental territoriale bi nga xam ne taxawal nañ ko fii te man ma jiite ko defe naa ñoo ñoo gën a def suivi bi ànd ci ak li nga xamante ni moom mooy moom mooy commune bi defe na suivi bi bu normalé commité de quartier yi dox gëm naa ni ñaari ñaari partenaires yooyu ñoo ñu am vraiment mun nañ satisfaire donc euh, les attentes de la population waaw waaw waaw waaw la question elle est peu kii damay jàpp ne dafa xaw daaw euh, du ma nekk question piège mais may kii euh, bien vrai que Caritas ñëw na PGIOM mu ngi fi certainement y aura d'autres partenaires ñi nga xam ne mu ngi ci euh, commune bi yaa ngi fi war a def lu mu def mais dama jàpp ne pour régler le problème des déchets je pense que population bi ci boppam en réalité moo ko war a mun a régler quel que soit le dispositif boo fi ti def quel que soit l' accompagnement bu ñu fi mun ti def te population ci boppam sensibiliser wuñu adhésé wuñu adhéré wuñu ci population parce que mbalit bi ci kër yi lay jógee mbalit bi ci ñun lay jógee donc suñ jëlee suñu dispositif bopp am na mbalit du souvent am na ñoo xamante ne ñu am mécanisme sans mécanisme dañuy toppatoo seen i mbalit am na ñoo xam ne ñu am mécanisme <laughs> amuñ mécanisme duñ toppatoo seen i mbalit hmm. donc c'est tout un travail ki yoo xam ne dañ ko fi war a def liggéey na nag boo xam ne duñ ko yàkkamti dafa war a jël temps c'est hmm. tout ton processus boo xamante ne day durer donc ñooloo tax c'est le moment aussi de la euh, lancer un appel à toute la population surtout la jeunesse ñu ngi ci nawetaan yi am nañ benn responsabilité ak part bu ñu ci def wax nañ ngaa jigéen yi mais jeunesse bi aussi am nañ donc dañ ne participation citoyenne donc gis nañ ça gaa population bi waa Croix-Rouge hmm. on voit que ñu ngi def ay actions de de de dans dans ce sens mais aussi les ASC e, ñu gën a gën a farlu gën a jàppal gën a jàpp parce que aussi euh, c' image c' image que nous rendons à tout un tout suñu bopp ak tout un tout toute une communauté Kaarang su setee c' est pour ñëpp la Kaarang su naatee pour ñëpp la su naatee c' pour par rapport à des dispositifs maladie yaa ngi fi feebar yaa ngi fi temps yi gis ngeen c' est période palu palu la donc c' est ak mbalte salte yi aussi c' des nids donc yooyu yëpp je pense que ak quels que les mécanismes que muñ ci def il faut que ñëpp jàpp ci il faut population bi jàpp ci donc je pense que loolu aussi c'est un appel qu'on à toute la commune de Karang toute la communauté te Karang aussi dafa nekk benn dispositif bo xam ne dafa xaw a complexe c'est une ville économique pratiquement ñi fiy xëy di ñibbi donc c'est ça rend un peu encore le le kii mais je pense que c'est Caritas muy PGIOM muy yéen Progrès TV il mm-hmm. faut faire des descentes sur le terrain ngeen di renforcer la sensibilisation par rapport à ces populations là donc c'est un processus c'est un travail mais je pense que ensemble avec la mairie avec les partenaires mais surtout avec la population on peut parvenir. donc comme que ñu yàgg aussi Caritas bi ñu waaj a jóg. alors moment bi ngeen jot a def yan problème euh, ñoom ngeen les problèmes plus récurrents si sur le terrain yan la. waaw entre yéen ak population waaw man man que comme ni mu ko waxee peut-être yàlla def na ñu ngi yëngatu ci ay projet yu bëri mais projet mbalit daa nekk projet bu gën a complexe bu gën a ci àdduna. même soo xoolee Dakar avec les milliards qu'on disperse mais terewul da ngay dang dégg souvent problème mu mbalit baa ngi fi donc problème yi ka bëri na bëri na par rapport au moyen boo xamante ne dispositif bi ñu fi def euh, mu ngi wax sànq sant Sadi euh, Médine quartier boo xamante ne dañ koy citer tout le temps en exemple parce que ñoom bu ñu commencé ba tey franchement quartier comité boo xamante ne ak quartier boo xamante ne na wax dëgg yàlla euh, ñu ngi ciy def liggéey bu mucc ayib problème yi nag am na parce que nag du ñàkk système moom su beesee nga indi fi ay système bu bees par rapport à la population par rapport ak ñiy liggéey par rapport gàllankoor du ñàkk d'ailleurs c'est le lieu aujourd'hui yoo xamante ne am na yoo xam ne pour pallier parce que dañuy jubbanti wax naa fi bi may commencé ne Caritas am na problème yoo xam ne rencontré nañ ko ñun ñooy pratiquement cobaye bi mhm. on est les premiers à descendre sur le terrain c'est à nous de se confronter certains problèmes mhm. ba nga xamante ne ñun dinañ ko mun a pallier mun nañ ko régler ba Caritas su ñëwee dina ko mun a éviter problème yi ñu am mooy problème mu comité yi ak ramasseurs yi donc je pense que am na yenn quartiers yi escale 1 ak escale 2 problème ak leur conducteur ba foog naa deux mois ou trois mois yoo xamante ne liggéeyuñ loolu itam du ñàkk donc euh, c' est des problèmes yoo xam ne on les rencontre mais des problèmes avec la municipalité on a trouvé de solution et je pense que d'ici peu quartiers yi nga xam ne commencé wuñu woon dinañu reprendre soit avec les mêmes conducteurs ou d' aussi donc si loolu yëpp euh, mënut a ñàkk. am na ay problème yoo aussi ñu rencontré par rapport à la au marché. waaw marché moom franchement euh, dispositif bu ñu ci mënut def aussi terewul day gis nañ ne valide bi dégage ci marché dafa bëri trop ak euh, la gare routière donc yooyu aussi ñu ngi ciy gën a ñuy waxtaan avec la municipalité peut-être pour di trouver ay solutions mais yàlla def na problème yi ñuy rencontré yëpp au fur et à mesure. ñu ngi ci trouver ay solution voilà donc moo Fatou donc projet bi dañ daanaka mën nañu ne daal en tout cas yegg mhm. ay causes yu bëri. Mhm. donc doon sensibiliser doon alors tey si cadre yooyu tey mën nañ ci taataan yoo xam ne mën na jël ñaat encore population Karang à soo gisee sensibilisation bi yàgg presque boo seetloo presque ça fait plus d'un an ñu ngi dugg ci quartier yi. dem nañ ba fu ñu tourné sax groupement bu ñu dugg sax ba dañuy commencé dañuy ree parce que dañuy xam li ñuy yëkkate da ngay mujj obligé dañ lay ay question naan la kañ la ñuy commencé kañ ñuy commencé mu doon loo xamante bi xëy na mo liñ ciy ragal mooy ñu tëb tey commencé ko te nit ñi xëy na xamuñu li ñuy yëkkati xamuñu li yëkkati projet yi parce que nga investir euh, ay millions ci commune ba pare te projet bi amul suivi loolu baaxul léegi pour mu am suivi ba nga xamante ni bii foog moo loolu moo war a tax ñu dugg ci euh, population bi sensibiliser leen sunu su ñi ñu ñi gën di liggéeyal presque ñun jigéen ñi moo ñu gën a intéressé parce que dañ naan ni ko euh, madame la maire waxee rek jigéen ñi ñooy bale ñooy yeewu fajar ñooy bale dajale mbalit mi di li lijjanti fu ñu ko yóbbu moo tax ñun ñu ciblé les femmes GPF fii groupement féminin yi ñetti caabi yeeg yooyu fu ñu ko dégg rek ña fay dem di leen sensibiliser. alors yooyu ngeen di liggéey que am na loo xam ne ay actions jot ngeen ne jot ngeen gis ne li ngi seen wax moo tax ñoom ñu def loolu. si si si ñu ngi ci ñu ngi ci. voilà mu ngi mel ni par exemple pour euh, si sensibilisation yooyu parce que bi PGIOM ñëwee. ñu installé comité de quartier bi installé nañ ko mais démarré gu ñu dara avant ñuy démarré Caritas ñëw bi Caritas ñëwee defal ñu ay formation war nañu dañoo war a dugg ci population yi dafa mel ni laa ci lañu ñu duggaale ci biir jigéen ñi fu ñu tuddee PGIOM tudd fa Caritas presque dama naan ñun ci suñu ci suñu jóg ak Caritas bi ñu Caritas envoyé pour ñu dugg wax ak population bi ci la ñu profito waale presque lancé waale PGIOM wax aussi ni PGIOM li ko yëkkati mooy yëkkati Caritas benn bi la amul pôle Caritas amul pôle PGIOM pôle yi benn la léegi bi ñu koy wax nag nit ñi ñu ngi ñuy déglu di ñu déglu bu ñu demee nag ba nga xamante bi comité euh, matériel nag bu dee lu jëm ci matériel PGE moo ko njëkk indi ci commune bi laaj bu moo tax ba nga xamante ni bi tey su mënuñu tudd Caritas tudduñu PGE waaw boo gisee tey jii dama naan nit ñi déglu nañ ñu parce que bu ñu demee ba nga xamante bi nit ñi ñi ngi adhéré ba ñu commencé ramass ramassage yi ak matériel bi PGIOM indi dama naan kon laa foofu ñu ngi ñuy déglu li ci des nag mooy renforcement bi nga xamante bi moom la Caritas war a def renforcer PGIOM parce que PGIOM li mu man def na ko fi mu yegg fi mu fi mu yegg fi mu war a bëgg fi mu kii fi mu toll taxaw na fa boo seetloo carré quartier bu nekk PGIOM joxe na fa cinquante pôles mais xam nga cinquante pôles c'est pas suffit pour benn quartier là moo tax Caritas bu ñëwee nag bi ñu defee évaluation yi étude def études yooyu yëpp moom dafa war a ñëw renforcer si Caritas ba nga xamante bi ñi nga xamante bi dugg nañ ci quartier yi ku ñu fekk nga amoon benn pôlu ci pôlu PGIOM bi Caritas bu ñëwee moom dina joxe euh, ñaari pôlu mais ñaari euh, pôlu yi muy joxe bu la fekkee nga am benn pôlu PGIOM day ñëw benn lan lay joxaat mu nekk ñaar bu ñëwee nag fekk ne yow adhéré wu nga ba bind euh, pour pour pour demander am poubelle pôlu léegi moom bu ñëwee daf lay jox ñaari pôlu. bindu woon nga mais amagoo polo ndax polo yi fa mu yem am na ñoo xamante bi adhéré wu nañ mais amaguñu ñu ngi jël ay saako di ci def seen mbalit yi léegi ñooñu bu ñu ñëwee ci ñooñu nga xamante foofu la ñu yemoon foofu la ñuy commencé waat nag moo tax ñuy def VAD yi pour xam ëllëg pour pour man pour nga xamante bi suñu ñëwee ba dugg ci quartier yi dina xam ki amoon polo ak ki amul polo ki bindu ak ki binduwul ba nga xamante ni bi daal ñëpp dinañ bokkandoo dugg ci système bi ma jàpp population bi bu ci jàppee rek réussite dina am incha allah. nga nga tëjee tey gisee Caritas nag macha allah ni may tëjee moom euh, avant tout di remercier ñi ma bokkal plateau bi. di remercier aussi monsieur le maire Pape Ibrahima Diop di ko jëfal di ko ñaanal jàmm ak salaam di ko ñaanal aussi yàlla na projet yi gën a yokku ba yeneen ñëw euh, fekk si waat yi projet yi fi nekk ñu gis ci population bi gis ci seen bopp fi may tëjee daal maa ngi lancé benn appel boo xamante ni bii di ko jagleel sama mbokk jigéen ñi surtout que ñoom ñun lépp lu ñuy wax rek ñoom la ñuy dem bu ñu def DAD sax ci jigéen ñi la ñu gën a sible ñun presque dañuy ndewu borom kër bu jigéen bi la ñuy njëkk a laajte pour pour nga xamante bi xëy na jigéen moom mooy bale mooy ton ni mooy wut fu ko ku ko yóbbul kii am que mbalit yi nañ koy trier fu ñu dem di waxtaan dañ leen koy wax nañuy trier mbalit mi soo dalalee mbalit mi ba mu ba mu dajaloo na nga jël mbalit mu oyof bi nga nga ber ko à côté jël kii xeer yi dajale ko fenn boo ko dajalee fenn xeer yooyu am na fu mu mën a renforcer ci biir kër gi daal yi su ko defee nag nga xam ne ay xottu biteel la yeneen ak yeneen nga wut aussi parce que kii dajale ko feneen ndax boo boolee xottu biteel yeeg xeer yeeg yooyu yëpp def ko ci kii bi xottu biteel kii jël mbalit mi mën na ñëw mu gaañ ko mën nañ ko na ñëw fekk mbalit mi diis ba du ko mën a yëkkati fekk yow dangaa ñëw boole suuf bee xeer yeeg tout suñ ñu jàppalee daal ci triage bi dina yombal liggéey bi ci ñun ñi nga xamante bi ñun ñooy wax ak ñoom dinañ xam ne li ñuy wax dégg nañ ko boobaax am na ñu koy def nag dina yombal aussi ñi collecte kii ñiy ramance ñiy jël si mbali yi di ko yóbbu parce que ñoom xam naa ne buñ fu ci yëkkati saako mu oyof yóbbu ba dina neex dina euh, nga yëkkati poubelle mu oyof yóbbu ba dina neex kon daal foofu daal moom lay gën a ñaax jigéen ñi que ñi ñuy trier mbalit mi daal di génne suuf bi. Mm-hmm. donc daraa euh, loolu la tëjee ak mm-hmm. xanaa di wax na rek euh, vraiment comme niñ koy waxee rek lii duuf ci cin li lii duuf ci cin li. lii duuf ci nag bi xajul ci cin li voilà. lii duuf ci nag bi xajul ci cin li parce que bu ñu sañoon tey vraiment dañ doon gën a yaatal émission bi yaatal plateau bi ndax on a beaucoup à beaucoup à ci wàllum population bi madame Diouf mu ngi naan dañuy sensibiliser jigéen ñi certes sensibilisation bi dañ ko war di gën a def ci côté jigéen ñi waaye aussi je lance un appel xam naa ne tey euh, maire bu sañoon loolu mooy am waaye nag nit ñi kenn da leen mënul forcer muy lan muy borom bâtiment yi borom kër yi nga xam ne dañu tabax seen kër yi ba mu raser ñu bakko foofu bokk na ci li nga xam ne mooy sonal population bi Papoul wax na ci sànq mu ngi wax naan dina jafe c'est vrai que xëy na dina jafe waaye am na lu bari loo xam ne nii jaar na fi ñu ngi ciy def ay jéego mais ba léegi am na lu des te ci côté boobu dama gis ne feeg jëluñu ci ay matuwaay dina metti d'habitude nag sénégalais moom xamul ku dóor ku fayu la xam fi mu nekk ni tey kër yaa ngi fi terrain yaa ngi fi salfa ñooñu ciy tuur mbalit ma madame Diouf dina nekk ca koñ ba ñu ne ko abonné wul mu ne duma abonné wu foo ko teg mu ne sama mbalit dama koy lakk mbala dama koy gas suul bu xaaree ba nit ñi reer ba fatu mu jël saako mbalitam dem jugal ko ci kër euh, monsieur le maire Ilweli Gaw nga xam ne tabax na ko war koo xëdd moom it kenn du moom xëdd ko bàyyi ko foofu rek musiba mu ne nekk euh, parcelle ba mu teg ko fa mu ne fa ñum ngir yàlla nañu bàyyi xel ci loolu te xam ne tey kaarang bu rafetee ni ma ko waxee sama njëlbeen ñun ñëpp la kaarang bu setee ñun ñëpp la danger boobu ñun ñëpp ñoo ko war a bokk daw kon nag vraiment nañu bàyyi waat xel ci côté boobu di wax ne rek vraiment un grand merci au maire aussi monsieur le maire Ibrahima Diop di ko jaajëfal te di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg a yóbbu Kaarang yal na ko fa yàlla yóbbule yal na ko ko fa yàlla yóbbule di remercier ñi toog ci ñi ma toogandool ci plateau bi di wax ne tamit ah vraiment mention spéciale waa Croix Rouge Mor ndax boo seetee semaine bi passé dale ko ci lëndi ba tey mardi lañu pare kon def nañ une semaine ak benn fan ci biir liggéey boobu mu liggéey ci moog sergent fay liggéey bu mucc ayib Nouran Sané ndaxte tey bu fekkonte ne ñoom dañu toogoon seen kër dina doon metti trop ci groupe de reboisement bi mais ñoom ñoo ñu jiite reboisement bi boo gisee ma tudd ko fi baabu xam naa dina la jaaxal mais yëpp ci Caritas gi la parce que Caritas dafa may ay garab aussi yemul ci ordures yi rek mais dafa indiwaat lu mat cent cinquante plans mairie bi def ci participation aussi ñu ànd reboiser ko ci biir quartier yi ci kër yi seet ko def xëy na première xam naa dama ne rek première euh, kii bi la essayage bi du ñàkk xëy na mu am deuxième ndax bu ñu sañoon kër yëpp am arbre fruitier yi ay arbre fruitier la ñu may woon ci biir euh, quartier yi ñu liggéey ko liggéey bu mucc ay vraiment may wax mention spéciale à Mor seen Sergent fay ak euh, Nouha waaye it duma bàyyi ginnaaw xëy na municipalité bi ak benn saaliw vraiment ñoomit ay ay nitu royukaay la ñu daal <laughs> waaw municipalité bi moom continuité la rek équipe bi ngay remercier xëy na mais mais commune bi moom comme niñ ko waxee sànq continuité Caritas aussi vraiment dañu ñëw nekk ay partenaires yoo xam ne nii loo wax ci ñoom rek am na lu des loo wax ci ñoom rek am na lu des ndax xëy na nit dina ñëw ci dëkk xool fekk fa sax partenaire waaye mu ngay ut lu mu cay xeeb ak lu mu cay yokk lu mu cay wàññi mais kii dafa ñëw ne comme fekk naa fi Pejum damay bootu ci ginnaawam ñu ànd dañuy ànd rek lëkkaloo liggéey vraiment ñuy rafetlu loolu ci ñoom di leen ci jaajëfal di leen wax ne tamit lépp li nga xam ne nii mbébét nañ ko si Kaarang yal nañu am lu weesu seen njort yàlla bu ci regret am benn yoon ñu naan ah ñun ne bu ñu xamoon duñu dugg kaarang wala duñ fi def xaalis yàlla bum ci am yàlla may ñu ci wér ak wérle ba fépp fi nga xam ne nii rek foofu la ñu bugg egg yal nañu fa yàlla yeggal di leen jaajëfal yéen aussi waa progrès waaye duma fàtte ki nga xam ne tey moo moo tax ma toog fii muy Paja suma ma bàyyiwul woon tamit xëy na duma am occasion bi ma duggee ci yëf yi merci beaucoup jërë ngeen jëf

ñoo liggéey processus bi mhm. donc comme ni mu ko waxee rek dañ ñëw mhm. on n'a pas cherché à se démarquer mhm. mais à être ensemble je pense que waxoon nañ ko bi ay frères ma ne noo ay seex lañ donc c'est euh, on est des jumeaux donc euh, looloo tax aussi j'ai pas vraiment de parce que ñoom li ñu war def la ñuy def mais ñi ma le message bi ma mun a lancer mooy par rapport à la population bi nga xam ne ça qui ay destiné projet bi ñoom ñoo ko bokk ñoo ko moom parce que projet gestion des déchets ne peut pas être réalisé sans l'accord et la participation des populations man je mets focus sur la population donc loolu foofu lay gën a lancer mon appel euh, di remercier les collaborateurs de PGIOM ñi nga xam ne ñoom laay liggéeyal dès le départ ba tey bu ñu egg si fii di remercier la municipalité di remercier tout le monde di remercier aussi des acteurs de développement yoo xamante ni ñu ngi fi dans la commune bon am na ñoo xam ne ne peut-être ils font beaucoup plus mais les gens ne les voient pas mais y a certes yoo xam ne ñoom ils se démarquent ñoo xam ne génération consciente am ne liggéey ak na ñoom vraiment dans le niveau de de la commune di remercier aussi waa Sanc Saadi avec euh, Mbeng je pense que aussi ñoom aussi c'est des acteurs yoo xam te ne ñu ngi def lu liggéey bu mucc ay di remercier waa Croix-Rouge comme on l'a dit et d'autres les ASC parce que am na ay ASC ak jigéen les braves dames ah. parce que il faut rappeler que aussi na too dem benn dimanche boo xam ne doo fekk benn quartier mu ngi set setal ah. ça moom il faut c' des actes à saluer ah. mais c' est des actes aussi à consolider donc c' des actes yoo xam ne am nañ ko fi am na ay jigéen yoo xamante ne groupement de femmes souvent man damay romb ñu arrêté ma fekk maa ngi leen fekk sur le terrain ñu ngi def ay set setal donc la déjà c' est une bonne chose mais lu ñu gën a wax rek euh, balayer c'est bon mais ne pas salir aussi c'est mieux donc loo aussi ñu gën cee travail euh, di remercier aussi la municipalité ñoom xam ne aussi ñoom ñoo aussi par à part la population ñoo ci am rôle boo xam ne ñoom ci war a gën a jouer parce que aussi c'est il doit être comme ni ma ko waxee des fédérateurs mais il doit être aussi ñoo xamante ni ñoo war a montrer la voie donc par rapport à des subventions par rapport à des actions concrètes yi xamante ne concrètes yoo xam ne war nañ ko teg sur sur la table teg ko au niveau de la population donc bu nga xamee ni soo defee su ko defee euh, le problème des déchets on peut pas dire que ça sera une mauvaise un mauvais souvenir mais dina nekk koo xam ne ay jéego yoo xam ne dinañ ko kii donc nañ ñaaxaat population bi ñu gën a bàyyi xel ci mbalit bi gën a setal donc sans ñoom le projet ne peut pas marcher donc ñoom man surtout je mets focus sur la population et je remercie vraiment les euh, ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi di remercier tout le monde et di lancer di wax ne nag aussi di aussi mënuma terminer pour aussi maire kii wax aussi sur les comités parce que système bi comité yi dañ ci am solo dañ ci am <laughs> ils ont un rôle très important daal donc projet bi ñu ñëwee dañuy accompagner rek mais à un certain moment ils von se retirer lan ñooy continuer continuité bi fan la pérennisation projet bi ça dépend des des comités de quartier donc comité de quartier yi daanaka projet jox nañ leen tey une remise symbolique des clés par rapport au tricycle pour gën leen euh, jox doole pour gën a matérialiser li ñuy lu ñuy xaar attentes yi ñuy xaar ci ñoom donc comité yi aussi donc ñu ngi leen di gën a ñaax c'est pas facile c'est pas évident parce que euh, ils vont rencontrer des problèmes dans les quartiers mais on est là pour les accompagner avec les partenaires et la municipalité mmh. donc aussi conducteurs yi aussi xam ne ñu ngi leen jël pour ñu liggéey ñoom aussi ñu ngi leen di ñaax ñu gën a góorgóorlu c'est vrai que liggéey mbalit neexul par rapport a tous les paramètres qui sont autour mais ñu comme ñoom ison ont choisi c'est des jeunes très dynamiques mais ñu gën a góorgóorlu gën a fonk parce que y a pas un seul lépp loo xamante ne yaa ngi ciy tedd rek liggéey boo gis liggéey yëpp a barke na fekk mu lew nga jëf ci liñ ci war a def donc ñoom aussi ñu ngi leen di encourager ñu ngi leen di ñaax di encourager aussi yeneen jeunes yi nga xamante ni ñu mun a adhérer mun a ñëw participer ci liggéey bi donc euh, c'est le maa ngi remercier tout le monde di remercier vos télé kii vos vos internautes di remercier aussi Progrès TV je pense que yéen itam vous jouez un rôle très important dans le système par rapport au Sestal par rapport à toute la couverture médiatique que vous faites donc yéen aussi ñu ngi leen di remercier bu baax baax remercier monsieur le maire qui est là. donc monsieur le maire dafa am benn euh, question boo xamante donc mu nekk loo xam ne avant na mën na sooxantal li nga xam ne moo nekk projet bi mu nekk wàllum les parcelles non uh-huh. alors tey euh, amaa balaa dogal bi si feeñ tey si commencé parce que yenn saa yi suñ mairie jëlee yenn décision yi ñu ne ah mairie moo def nii noo def nii amaa duñ ko gis tey donc man lan nga leen di wax encore balaa yeneen dogal di si ñëw parce que itam jël ay parcelles yoo xam ne dara nekk ba mën a wax muy climat dëkk bi itam loolu yaakaar naa la merci euh, Babacar loolu dafa nekk loo xamante ni Euh, ñun dëkk bi yëpp wax dëgg yàlla teg nañ ci suñuy gët mais dëkk bi yëpp aussi ñoom ñoo koy joytu defe naa daaw ci novembre bu UCG ñëw nañ fii nii euh, ñu joytu woon leen dépotoir sauvage d'ordures yi nga xamante ne ñu ngi ci biir dëkk bi te dépotoir yooyu yëpp mun nañ ne ci biir ay kër nit la nekk mm-hmm. muy lan muy ay comme ni nga ko wax rek les parcelles non viabilisées yoo xamante ni tey da nga fiy gis parcelles yoo xam ne mun naa ni depuis vingt ans nañ mel noonu noonu lañ mel dootoo xam sax kan moom moom parcelle bii nii donc mu bëri ci dëkk bi tey ñu ñëwoon fi ak UCG ñu vraiment dépotoir yooyu yëpp ñu dindi woon leen enlever les ordures mais tey soo fa demaatee ci yenn zones yi dafay mel ne mosu sax jaaroon foofu noonu génnee génne mbalit boobu noonu donc dañuy lancer rek euh, un appel euh, ci ñi nga xamante ni ñoom ñoom moom parcelles yooyu vraiment ñu jéem cee def dara parce que ëllëg su mairie bi jëlee ay ndogal coow li moo fiy bari ay waruñ koo def ak ay war nañ koo def donc nag bala ñu yegg foofu vraiment ñu ngi lancer un appel ci ñi nga xamante ni ñoom ñoom moom parcelle yooyu ñu jéem a ñëw defar ko viabiliser ko parce que tamit soo ko bàyyee noonu ñu daloon na fi sanc saa bi benn xale bu jigéen boo xam ne jàpp nañ ko yeew ko ci benn kër kër goo xamante ni kenn dëkku fa ñu ngi ko clôturer bàyyi ko noonu mu ngi am ay garabu mango mu ngi lëndam kenn nekku fa donc genre yooyu noonu aussi même bu dul mbalit bi rek ay source d'insécurité la parce que lu nekk mun na faa am yenn reptiles yi aussi mun nañ faa mun nañ faa dëkk xale yi di ci fo donc dañ leen di lancer waat vraiment un appel à ce que ñu ñëw xool seen parcelles yooyu nan lañ koy viabiliser ba nga xamante ni problème yooyu dootu fa am. alors gis ko groupement de femmes yi bénévolat yi association yi ñoom ñoom taxawaay. donc ngeen nekk ñuy déglu alors loolu qu'est-ce que ça vous euh, loolu dafa nekk loo xamante ni dafa ñuy neex dañ koy rafetlu fu ñu dem parce que récemment dem naa Kaolack TVS télé saalum mm-hmm. je pense que ni wax naa ko fa ba cité fa ay vraiment association yoo xamante ni ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi ciy dox ndax Popol wax na ko léegi parce que boo gisee ci noor bi peut-être mun naa ni nawet bi sax moo tax jigéen ñi xaw a wàññi da ngay gis ne yow chaque week léegi soo demee ci quartier yi yaa ngi koy fekk yaa ngi koy fekk jigéen ñi ñu ngi génn. comme ni nga ko waxee am na ay génération consciente am na ay euh, tessito yoo xamante ni tey jii nii dañ koy dañuy dañuy yëngu ci li nga xamante ni moom mooy mbalit mi nga ñëw aussi ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy croix rouge ak liggéey yi nga xamante ni ñu ngi koy def loolu dafa ñuy neex parce que euh, commune nekkul lépp rek mairie bi moom moo ko war a def mais kenn ku nekk tey jii nii dafa am loo xamante ni moom moo la war ndax mbalit bi nekk tey jii nii sa koñ soo bëggee xaar tey jii commune bi mu ñëw yëkkatil la ko mun naa am commune bi dina ko yëkkati mais bala mu ko yëkkati est-ce que yow doo ci jënd ay ordonnance mm. donc tey war nga mun a jóg nga tey ay jeunes ñoo nekk ci koñ yi c'est le moment aussi ñu lancer un appel aux euh, que ni nawet bi jeex na kenn ku ci nekk tey mën nañ ne ASC yu bëri ci ay école la ñuy la ñuy la ñuy entraîner c'est le moment tamit ñu jéem a commencer def li nga xamante ni mooy set setal ci école yi nga xam ne ñu ngi fa doon entraîner parce que bientôt ouverture des des classes donc loolu vraiment ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant di jaajëfal euh, association yi nga xam ne déjà ñoom ñu ngi ci yoon boobu noonu di jóg di def ay seet seetal di def ay reboisement vraiment ñu ngi leen di jaajëfal di am mbégte bu baax a baax ci ñoom. Ah, ñu gis ne le premier ministre de la Médina monsieur Dramé Domi di ko nuyuwaat encore une fois. donc def na pas mal de voyage puisque yaakaar nga ne tey euh, sérité bi boobu mm-hmm. euh, war na am yees ba tey si nga xam moo nekk projet wàllum mbali effectivement parce que tey jii nii lépp li nga xamante ni tey maire jóg na dem demul pour euh, benn visite boo xamante ni wala pour dem pour noos wala pour lekk xaalisam tey lépp lu mu dem defi ci li nga xamante ni moom mooy voyage yooyu mooy recherche de partenaire je pense que ni tey jii nii wax na ko ci benn sorteem wax na ko ak euh, ENDA bi nga xamante ni tey signé nañu ñoom ay convention yoo xamante ni lépp ci recherche de partenaire bu ñu nee recherche de partenaire nag nekkul ci mbalit kese la ñuy rechercher mais fépp foo xamante ni am nañ yaakaar ne tey ay partenaires war nañ fa mun a développer war nañ fa mun a jàpp suñu commune pour mu avancer rek wax dëgg yàlla ñu ngi ci te xam naa ni yàggatul euh, ay jamono yu néew rek di ngeen gis yoo xamante ni wax dëgg yàlla. jural na euh, ñu visitam boobu noonu mu nekk Canada ak aux États-Unis waaw waaw liñ ci tëje nag mooy wax dëgg yàlla euh, d'abord dañuy au nom de la maire donc oh. du moins au nom du maire de la commune de Karang dañuy féliciter ak di remercier ki nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy Ben Saliou Ndiaye jiite PGIOM parce que mun nañ ne deux jours ñu ngi ko téye fii ci mairie bi te xam nañ ne calendrier bi dafa chargé ndax démb ñu ngi fi woon Euh, daje ak ñi nga xamante ni mooy comité de quartier yi ak euh, conducteurs yi la commune ak moom mi ñu toog fii nii di waxtaan defe naa ñu xool jafe-jafe yi nga xam ne tey comité de quartier yi am nañ ko mais aussi conducteurs yi tamit am nañ ko ñu xool nan la ñuy trouver ay saafara ba nga xamante ni loolu day nekk ci suñu ginnaaw te démb alhamdulilah bi ñu waxtaanee vraiment trouver nañ terrain d'entente tey ci suba tamit comité yi ñëwaat ak conducteurs yi ñu doon def li nga xamante ni parce que PGIOM ba mu nekkee ba léegi ba mu amee ba léegi tamit mun nañ ne matériel bi nekkul woon ci responsabilité mairie bi parce que ñun parfois sax ay nit dañ ñu daan woo naan ñu tricycle bi ni ñu leen a ah, ñun matériel bi wax dëgg yàlla nekkagul ci responsabilité mairie amul dara luñ ci mun a wax xanaa ñu woo Papol bu ñu woowee Papol après ñu wax ko ko mais nag sant yàlla bi ñu waxtaanee vraiment trouver terrain d'entente moom itamit euh, mu am grandeur wax dëgg yàlla nekk koo xamante ni aussi ku disponible la ci saa buñ ko soxlaa euh, mu ñëw tey. ñu def li nga xamante ni moom mooy remise symbolique ci tricycle muy cinq tricycle yoo xamante ni tey PGIOM amoon na ko mu jël cinq tricycle yooyu mettre ko à la disposition de la mairie wax dëgg yàlla ñun tamit ñu jëlaat ko yóbbu ko ci li nga xamante ni moom mooy comité de quartier yi te ñu ngi ñaan yàlla aussi li nga xamante ni tamit moom la ci jublu woon yépp yàlla matal ko parce que lim ci jublu woon yëpp mooy lan mbalit mi tey jii ni jóge ci dëkk bi même bu fi jógewul à cent pour cent mais à quatre vingt dix pour cent wala vraiment mbalit bi jóge ci jóge ci li nga xamante ni moom mooy commune bi donc ci kaw loolu ñu ngi koy jaajëfalaat di jaajëfal en tout cas ñëpp ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi ñuy seetaan tey jii nii à travers seen chaîne bi nii muy progrès muy progrès TV donc di lancer un appel rek ci population bi yëpp ñoom ñëpp ñoo war a ñëw jàpp ci li nga xamante ni moom mooy dëkk bi pour mu jëm ci kanam mais tey euh, da ngay gis loo xamante ni wax dëgg yàlla euh, benn mbalit bu ndaw nekk sa buntu kër au lieu nga jéem a jóg euh, buub ko dem tuur ko mais da nga ciy xaar li nga xamante ni mooy commune bi da ngay gis koo xamante ni tey buntu këram day am benn pax bu ndaw ndox bi ñëw yàqu ko nga bëgg a toog sa kër di commune bi vraiment pour mu ñëw Euh, suul euh, pax boobu noonu pax bi nekk sa buntu kër nag vraiment soo ko munta suul ba ci xaar commune bi ah dina doy waar nekkul mairie nag lépp la mun a def donc ñu ngi waxaat nit ñi di leen lancer un appel surtout ñu changer li nga xamante ni mooy comportement euh, defe naa benn wax na ko fi am na ci lu bëri mu ngi am ci dëkk lan la comportement rek la buñ changé woon suñ comportement mbalit bii mi ñuy wax nii mun na bëri trop waaye du tasaaroo ci biir dëkk bi parce que kenn ku nekk sa mbalit am na foo ko mun a am na foo ko mun a def donc ñu ngi leen di ñu ngi leen di waxaat vraiment ngeen jàpp ci liggéey bi pôle yi dina ñëw ñuy wax jigéen ñi tamit pôle yi du pour ceeb du pour ndox du pour ay yére ceeb pôle yi buñ ko indee tey pour mbalit la ndax bu ñu la joxee pôle tey am kibéer la lépp nga xamante ni tey soo ci defee say mbalit tëj kibéer bi tëj ko mun naa ne xet du la sonal ba nga xamante ni tey bu ñii bu mbalit bi ñëw bu ñëwee dañ koy jël facilement daal di koy yóbbu beneen bi ci des tamit ñu ngi koy waxaat parce que parfois euh, ñi nga xamante ni ñooy collecteurs yi dañuy dem jël jëli mbalit suñ jëlee mbalit nga yaakaar ne dañoo war a ñëw dugg ba sa biir kër jël mbalit bi dem yóbbu ko déedéet demeewul noonu kenn ku ci nekk même dans les grandes villes defe naa auto mbalit bi ca tali ba lay taxaw corne mm. ñëpp daw si indi seen mbalit fii tamit c'est li nga xamante ni mooy tricycle bi wala charrette bi bu ñëwee ci koñ bi dafa war a fekk yow nga génne sa mbalit teg ko ci buntu kër gi mu jël ko mm-hmm. parce que lu tax ñuy def loolu benn yow euh, am na kër yoo xam ne dañuy wéet tey mun nga ñëw dugg fa jël mbalit tuur delloo bagage bi dem sa yoon dara manqué fa ëllëg ñu ne kan moo fi duggoon ñu ne ah ki doon buub mbalit moo fi duggoon mun nañ ko koo jiiñ mm-hmm. donc yooyu yëpp nag risque yooyu nag pour éviter ko moo tax kenn ku nekk nay génne sa mbalit ci bu conducteur bi ñëwee daal di jël mbalit bi sotti tegalaatal la sa sa pôle la nga dugal sa biir kër donc loolu vraiment ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñaaxaat surtout jigéen ñi nga xamante ni ñoom la ñuy fekk ci biir ci biir kër yi donc ñu ngi sant ñu ngi sant ñëpp di sant ñi nga xamante ni ñooy suñuy partenaire muy PGIOM di sant aussi bu baax a baax Caritas bi nga xamante ni mun nañ ne ay millions ak ay millions tey ñii nii dugal na ko ci dëkk bi te pareegul ndax centre bi nga xam ne ñu ngi koy tabax rek fi mu ni nii c'est des c'est des c'est des dizaines et des dizaines de millions yoo war na ko fi war na ko fi def defe naa récemment la fi la fi la fi euh, euh, géomètre bi ñëw def levée léegi ñu ngi ci étude plan bi suñu paree rek defe naa li ñuy def mooy liggéey bi commencé lu yàggati incha allah muy construction bi donc di jaajëfal aussi ñi nga xamante ni ñoom laa toogal fii nga xam ne du ñu yendal du ñu fanaanal. lépp ci lan ci xeex li nga xamante ni mooy mbalit bi defe naa yëpp xàmmee nañ leen léegi ci VAD yeeg causeries yi nga xam ne ak conférence yeeg mobilisation de yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy def donc loolu moo nekk loo xamante ni ñu ngi ko ci wax di jaajëfal aussi groupe bi nga xam ne mooy groupe plaidoyer nga xam ne tey ci fan yu néew war nañ mun a dem rencontrer les autorités religieuses mais rencontrer aussi les autorités administratives yi nga xamante ni tey ñu ngi ci département bi pour wan leen li nga xamante ni tey Euh, mën nañ ne commune de Karang avec ses partenaires muy PGE muy Caritas tey ñu koy ciim ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy mbalit mi donc ñu ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal aussi monsieur Ibrahima Diop mi nga xamante ni mooy le premier magistrat de la ville de Karang donc ak képp koo xamante ni rek ñu ngi yaa seetaan ñu ngi sant di leen gërëm.